رحمة ربك بمجنون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله تعالى عن العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله إذا يشمل ذويه من الآل والأتباع والأحباء أجمعين أصحاب الفضيلة والسماحة المشايخ والعلماء معالي وزير الداخلية ممثل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له أصحاب السعادة السفراء وأعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين ببلادنا أيها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيسعدني ونحن في اختتام فعاليات المجل لعام ستة وأربعين وأربعمائة وألف أن أوجه إليكم هذه الكلمة باسم سماحة الخليفة العام lil muridiya al cheikh muhammadin muntaxa bakke xafidahu llahu taala wa ataala baqaahu fina maxfuufan bisixati wassalaamati shaakiran lakum bismi samaaxatihi ala mawaaqifikum annabila wa tadxiyaatikum almuqadara lilxuduri walmusharakati maana fi haasa alixtifaal assanawi لذكرى الغيبة البحرية لمولانا الشيخ أحمد الخليم الذي أفنى حياته كلها في عبادة لله وخدمة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان رضي الله عنه قد أمر ذويه من الآل والأتباع والأحباء بإحياء يوم الثامن عشر من سفر من كل عام شكرا لله تعالى ala ma an'ama alayhi min an-ni'ami adh-dhahira wal-batina bisababi mihnati at-tahrib allati 'aanaha wa kaanat qad ibtada'at fi hadha al-yawm sittata thalathata 'ashara wa thalathmi'a wa alf wa ta'ti dhikra hadhihi al-marra ba'da mi'ati sanatin min rahiilihi min rahiilihi ila rafiq al-a'la fa jasaakum allahu khayran wa shakara lakum hadhihi al-musharaka al-fa'ala وهذا التداوم الأحوي الذي برهنتم به من جديد على إيمانكم القوي وتفاعلكم الإيجابي مع مقتضى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة هذا المقتضى الذي جسده شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله باه القديم في علاقته بغيره من الأقارب والمشايخ والأمراء والأتباع والأحباب وخيرهم وكان رضي الله عنه يقول في علاقته بخيره من الأقارب والمشايخ والأمراء والأتباع والأحباب وخيرهم وكان رضي الله عنه يقول المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات ومن دعائه واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النسب وأحرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردعا وهكذا كان مع خلق الله يراعي فيهم xaqa xaaliqihim wa yabudu llaha llaha taala bil ixsaani ilayhim xata wasafahu ahadu xiyaarihim acheikh seydi baba qailan acheikhu ahmadu nicmatun awlaha haasi lxalaiqa kullaha mawlaha wa kanat alaqatuhu bil umara wa ashaabi sulta alaqata nasihatin wa irshad wa tawjihin kama fi qawlihi li ahadin xiina talaba nasihata i'lam bi anna dunya laa taatiika illa bima tanzihuhu minka ila qaala wa alayka bi i'anati du'afa wal fuqara'i wal masakin wal inkifaafi an al jawri wa zulmi faman zalima nadima wa man jaara baara radiyallahu anhu wa ardaahu anna wa ja'alana mimman yuhsinuuna al iqtidaa bihi fi taalimihi as-sunniya an-naafi'a wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa nag li njëkk def mooy jéggulu jéggulu ndax baas bi tàng na lool li ko waral nag sëriñ bi da koo jëndoon mu jóge siin yaxa agsi daanaka ma ne saa wax ne démb la noppi moo tax na mu war a mel melu ni kon ba dañoo dugg ci kàddu yi day njëkk jéggulu ñëpp kon ci turu ak ndigal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha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 ñi mu seqal diine lislaam ci àdduna sépp rawatina ñi mu bokkal réew mi rawatina kilifa yi jiite kër yi diine yi di jokk bu baax bokkook lislaam ji seen mu gën a rafete te fas yéene lépp lu ngeen nekk mu ànd ak yéen ndax xam na ne sàmm ngeen ko na mu gën a rafete seen digga njabootu sëñ Tuubaa kon yàlla ne yàlla fay seen mu gën a rafete te sàmmal nu lu ñu bokk ak li ñu boole ba bu seytaane am ci naw yoon inna seytaan lakum aduwun fattaxisu aduwan ginnaaw loolu yéen délégation yi fi teewal njiital réew mi président de la république Bassirou Diomaye fay ñi ci njiital ministre intérieur di sénéral Jean-Baptiste ak mboolem ministère yi nga àndal yëpp ak mboolem chef de service yëpp ak mboolem délégation yi fi teewal mboolem banqaas yi fond réew mi yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante ay cant ak ci ngërëm ci njiite réew mi ci taxawaayam ak mboolem ay jëwriñam ci magal gi ndax xam na ne diggante bi gàtt na ndax juróomi weer bëreegut waaye wane ngeen ci seen yéene wane ci seen taxawaay ba mi ngi leen sant di ko gërëm du ko ñaanal yàlla suñ borom lii nga xam ne yàlla ko ko dénk yu coobareem yàlla na ko àggali ci jàmm te mboolem yaakaar ji réew mi am ci moom bañ a mi ngi nii itam mboolem ay jëwriñam te buñ ci tuddee premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne ñëw na fi bërti dem ba sëriñ bi la yóbbanti ci mooy ak cant ak ngërëm di la ko jeexale cant gi ci yow mii nga xam ne nag yaa doon taxaw màggal yi di ministre de l'intérieur ak mboolem ña ko àndaloon ñëpp ak mboolem ministère yëpp ndax lim nañ leen te limoon nañ leen ku ci ne ñëw na fi wane si yéen ak sa taxawaay kon sëriñ bi wax na ne sant na leen gërëm na leen te sëriñ Abdou Lahad Mbacké daa waxoon ne sëriñ Tuubaa nee na wa xaysuma xasanatil insaanu ilayka fahmatu bi laa tawaani saa su la nit ci defalee lu baax nanga ko sant fa saas te bu ko yéexee yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomate yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen yóbbante ay nuyoo ci seen njiitu réew ya nga xam ne ñoon nga fi teewoon di nuyu baax nag mboolem yeneen formation politique yi fi teew di sant bu baax mboolem kilifa yoon wi ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale ko ci liggéey Serigne Touba bii mu teg ci loxoom di sant di gërëm bokki taalibe yi nga xam ne ñoo wuy si ndigalu Serigne Touba li mu joxe woon ci bis bii ñu doon dundal muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safara mu sàkk woon ñu ko ci santale yàlla ci xéewal yu rëy yu bari yi koy diggal te sababa woon ci tukkub géej gi ndax sant dafa bokk ci xéewal yi gën a màgg ci jaamu yàlla bal illaha fa'bud wa min ash-shakirin wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid nee na bu ngeen sante ma dol leen waaye bu ngeen gàntoo mi ngi leen di ndig ak ci mbugalam la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna asabi la shadid kon nag noo ngi sant yàlla ci fekke gi ak tal gi màggalu ren ji nag mooy dëppook téeméeri at ginnaaw bi Serigne Touba ñibbisee Touba ginnaaw dund gu barkeel goo xam lépp mu ngi ko jeexal ci rafetal diggam ak boroom ci jaamu ko bil imaani wal islaami wal ihsaani jeexal ko it ci rafetal diggam ak jaamu yàlla yi ci jaamu yàlla ci ñoom ci gindi leen ak defar leen ak jariñ leen won leen mbaax tàggat leen ci ànd ak ñoom di ko dund na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan dunde ak saxaaba yi daan woo ñëpp ci wetal yàlla ak jaamu ko ci sunna wax na ne addu ila ilahi bi tawxidi wa ma raaytu anhu min mahidi addu bi tafaquhi maha maylin li xayrihi wa kulli qabila addu ilayhi bi tasawufi maa makarimi al axlaaqi wa huwa chamia ànd ak taalibe ci taxliye leen ba ñu set wicc taxliye leen ba fees del ànd ak bokk yi ci yërëm leen yiir leen defar leen defal leen ba kenn bëggul di moroomam ànd ak jàmbur yi ci jege leen ak jariñ leen ànd ak buur yi ak warum ndombay tànk yi ci gindi leen ak laabiiri leen ak dig dig ak dig leen fu ñu toll ñuy sax ci njub daan leen wax ne ku ci àdduna jox dara na xam ne ci moroomam la ko nangoo teyit dana ko masa nanguwaat ci moom jox ko keneen kon ku ci yàlla jox doole na ca sàkku ngërëmam te moytu ci ak tooñ ak làqu ko tooñ ak far ko tey dimbale néew ji doole yi ak yërëm leen ak bañ a xañ kenn akam daan na leen wax ne man zalima nadima wa man jara baara kuy kuy tooñ da ko rëccu te ku jengit di nga al lii nag Serigne Touba mi ngi ko digaloon buur ba jolof sàmbale bu faal kon nañu xam ne fukki fan ak juróom ñett ci weer safar ndax at mu jot bu ma saan agsi nattu yi yëpp dañu koy ful ci metti metti ak ci tartar waaye lépp mu di ko dékku ndax jom ja ba ci atum masasin ci lañu ko xama nekkoon natt yi jeex na li ci sa kanam lépp ak may la ak xéewal te day yokk at mu ne ñi natt yi doon yokkoo fa dur wala wa nafu jai lor dem na xéewal ñëw na wa fii kulli chahrin zaydu ribhi wa fi safar nee na weer wu nekk ak weer safar wu ne yàlla day yokk samay ton wu mu wax ma ne may yi ko yàlla may dafa lott ci sant ko dégg dëgg sant dëgg dëgg sant xibaaduka lii ahayat ahayat shukuriya fil kunhi laka alhamdu yaa fardan taalayta an shibhi mu wax ne cant gi da koy jéem waaye mënu ko xawaltu shukurallahi fii turabi baxda jamili baxda jamili sabri fi ixtirabi moo tax mu war taali bi yëpp ak képp koo xam ne mbégam sa mbég la weera safar wi nga xam ne ci la génn dem ci géej gi atum sa sasin moom lay wooye safarul xuruj dana ko tudd it safarul jalili ngir meloo jalaal yu ko yàlla feeñoo ba yi dikkal ko weeru safar wi nga xam nag ci la natt yi jeexe te mooy safaru masa masasin moom lay wooye safarul yi ngir ci la may yi dikke dana ko wooye itam safarul jamili ngir meroo jamaal wi ko yàlla feeñoo ba nattu ba nattu yi dem xéewal yi dëgmal ko moo tax mu wax ne yaa man jaala bi fadlika wa juudika safara masasin jasaan lii boroom xam-xam yi dañuy faral di wax ne aljasaau min jinsil amali jëf ju ne la mu xeetewal lañu koy la koy fay nu mu toll it lañu koy fay kon baax na ñu xam ne lenn ci nat lenn ci natt yi nga xam ne suñu bam nattoonu ko sëriñ bi muy al anasir arba arbaha te mooy te mooy suuf sawara ngelaw ñoo dàmbi adduna bi ci la yàlla di jaarale xéwal yi waaye waaye ci la yàlla di jaarale nattu yi suñu xoolee yonente yàlla yunus nattoom ci ndox la jaare nekk na ci biir gi géej gi lu ma ñeen fukki fan fa sahama fa kaana mina mudahadiin faltaxamul xuut wa huwa mulimun yonente yàlla yusuf am nattoom ci biir suuf la jaare nekk na ci biir suuf ab biir ak nekk ci biir kaso ba yàlla dogal mu génn ci ak ndam qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yusuf wa alxuuhu fi xayaabati yaltaxiruhu baadu shiyaar in kuntum faa'iliin yonent yàlla ibrahima am nattoom ci sawara la jaare qaalu xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin réew yu bari ci ngelaw la leen yàlla di alage wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiyatin yonent yàlla Suleymaan yàlla dafa tàggatal ngelaw ba nu ko ngelaw def ko topp ko ci ni mu ko bëgge wa saxarna lahu riha tajri bi amrihi ruxaan xaysu asab waaye bi mu koy nattu ci ngelaw la ko jaare te mooy dini tàggat gi ci ngelaw li kon ñeent yi naka jekk ci la yàlla di xéewale ci lay nattoo ci lay mbugale fu kullan axasna bi sanbihi fu minhum man arsalna alayhi xaasiban wa minhum man axasatuhu sayxatu wa minhum man xasafna bihi arda wa minhum man axraqna sëriñ Tuubaa nee na li ma yàlla may borom xam-xam yëwuyoon mënuñoo def ay gëstu ak jàngat ba xam ko ak xaaliyal baatina maa la yazharu li man tabaharu wa man tamaharu may goo gi nag moo waral nit ñi dëgmal ko wallahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii fil barri wal bahri zanaqin bila darari ñii di wut ci barke bu adduna ñii di wut ci ak njub wa kullu man ahabani aw maala ilayya farzuqhu hudan aw maala nee na képp ku ma bëgg baa nga ñëw ci man yow yàlla may ko ak njub may ko alal ñaar yëpp nag muy mucc ak alal yàlla may na ko ko may gu sax zitta hudaya putta hadaya lii biri daya doona shirika yi barakati barakatun laa tansarim tawshiati kamadadi laa tanxarim sama barke day sax te day wéy tëbb yi ma yàlla di tëbb ma di ci jubale nit ñi moom it day sax bu fàwwu nee na wal tuxti kulla man li ajli lbarakat min xaariya baran ka faani mushrikat wal tasfi kulla man li ajli maradi min min xaariya man li yaquudu xorodi nee na ku ñëw ci man ngir tawat ju ko dal eh, eh, saafaral tawat ja wal tuxti kulla man li ajli ljahri min xaada ilman maa li jahri ku ñëw ci man ngir réer joo ko xam-xam bu ko faral ak réer ba faw jàmbat yëpp da ko daa faj ci mbóot mi ko yàlla jox wax na ne hadaniya allahu wa abqa lil wali ilal jinaani kulli hada yàlla jubal na ma bàyyil ma fi njub gi muy sax bakaru àjjana sama lépp la ma jubalal mu dellu waxaat ne ataaniya zikra alxakima saaliba lii lii hudaahu wal ida lii xaaliba yàlla jox na ma alxuraan jox ma njub njub gi ci nekk notal na ma samay noon mu ne yàlla jox na ma alxuraan jox jox na ma alxuraan jox na ma njub gi ci nekk notal na ma samay noonu suñu xoolee sëriñ bi ñeenti élément yooyu yëpp yàlla nattu na ko ci ndax yóbbu nañ ko ci géej gi diir bu yàgg asam asamaan si di taw ci kawam mu ne ci géej gi di tumuranke fa man yulqi nii fil bahri raw man li xurbati fa lii min ilaahi rawdu fii kulli bi sëriñ bi nattu nañ ko ci géej ndax ca ba batax tax yoon mu mu di mu di ko tudde al xaybatul bahriya yonent yàlla ibrahima dugal nañ ko ci kàmbu sawara suñu borom xettali ko ne ko xul naa yaa naaru koo ni barran wa salaam ala ibrahima sëriñ bi ca gabon lañu ko gasale am yeer sëriñ abdul ahad mbàkke wax na ne na jaar moo jàpp ci ay baggam yëkkati ko ne ko buñ yàq sab liggéey yonent yàlla yonent yàlla Moussa yonent yàlla Souleymane ci ci ngelaw lañ ko nattu sëriñ bi yóbbu nañu ko ca gànnaar fa ngelaw la gën a bare gën a tànge moo tax mu wax ne fa tant nii fii te ne man taqaddamu fa lii atti nii min ka min hum taqaddamu nattu nga ma nattu ñi jiitu woon kon defal ma ak jiitu ci seen barke loolu yàlla defal na ko ndax wax na ne xaddamani llahu alal fuddaami bil mustafa al musabbit al aqdami mu ne yàlla jiital na ma ci mboolem ñiy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke moom mi nga xam ne mooy jàppal gaa seen tànk di leen dëgëral moom mi ko yàlla may nag ginnaaw bi ko yàlla gërëmee da koo nëbbu ba ku yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko sëriñ abdoulaham Mbàkke nag daana wax ne xéewal fareen ba di sax kenn du ko xam ba di ko dagg moo tax sëriñ Tuubaa wax ne ne radiya anni man raditu anhu wa xaala lii sirri wa xuswa sunhu yàlla gërëm na ma man it gërëm naa ko mu ne ma jëlee sama mboot mii te nga ñoŋal ko mu dellu waxaat ne wa xaada lii wa lii xaada sirran xaaba an xayrihi lmuhit yàlla jox na mboot moo xam ne ku dul moom xamu ko ilaya xaada maliki mu sax sihi lxawaaliki uniiru xalba zaliki bi zahiri wa mubhami nee na suñu jox na ma luy dindi lëndëm lëndëm yi ci xol yi moo tax damay leer xolub xolub murit bi sóobu ci sahir ak batin looloo waral defar yomb lool ci keppaar moom sëriñ Tuubaa sëriñ bay jaax te wax na ne bu jàppee ku bokkam ya fab sànni fee bu delloo ca bokkam ya moo fay tane njub googu nag yàlla jox na ko ko ba àdduna tukki du fi jóg hibaatu man jalla anil misaali xalla dali mu raqi yal yàlla mi nga xam ne amul moroom may na ma loolu dafiy sax di tarxiya mbooloo mi moo tax njabootu njabootam gu mag gi Serigne Saylou Mbacke dégg naa ci kàddoo mu ne waxoon na ak Cheikh Mahamadou Moustapha ak ak Cheikh Mahamadou Fadi ne leen seenub liggéey ci nit ñi la jëm ndax yàlla damaa liggéey suñu borom ba mu fay bindee fi kon yàlla damaa fay nit ñi moo tax du ngeen tàggootu nit li ma leen di digal nag mooy suñu dikkee fi yéen bu kenn tumuranke seen kër def leen fay njaq bu fa kenn xiif mu teg ca na mbooloo mi ñëw ci yéen du weesu ñaar ñi kuy laaj ak kuy joxe mu ne ñaar ñoo ñi rek ku leen xàmmee yàlla jéppi la waaye nag yàlla def na joxe waaye ñu ñi joxe jamono junne ñoo ëpp ñu laaj waaye li ma leen li ma leen di wax daal laaj aw fit ndax ku la gën a tabe bu ngeen doon xeex moo lay moo lay ban Tuubaa nag xéewal la goo ku ko yàlla baaxee war ngaa xam bu baax li yàlla defal te fonk ko bañ koo boole ak dara ndax yàlla ñu ko bind moo ko defal fitra salima teel ko won yoon wu muy jaar ca teel ba muy jukk alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakkasan mujabaaw noonu la nekk woon ak i waajuram ba jaaxal leen ci ndawam di taxaw guddi di doxe doxe noo xam ne miiruñu ko ci ku toll ci atam bi mu tollee ci xàmmee tegu ci yoon wi ko ay waajuram sóob ci ci nangu ak sàkku xam-xam te la ràññiku lool ci lu baax ak xam-xam féete kilifaafam fépp yoral ko daara ji ba mu demee ba gisatu leen mu sóobu yoonu gaayu yàlla yi yàlla defal ko yitte ju kawe mu jóg ne dann rasulullahi sallallahu alayhi wasallam def ko wasilam dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadun di samadi fu ko xetam xeeñ mu war ku fa loolu waral fi mu jaar fépp ak wirdi yu mu jël yëpp ba keroog ba muy dajeek moom sallallahu alayhi wa sallam di jaayanteeg moom ubayiul yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa axaqu jumlatil wara bi xidmati bi nafmi wa nasri rasulil xidmati ca loolee la sax jural ko bakkanam ak dundam ak léppam billahi lasi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati xarakaati wa sakanaati maha sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu jaral ko ñu génne koom réewam ak ñooñam ak i taalibeem xusuuriya xallat wal ahlu xanni tafarraxat bi matxi lasi xanful madihu qasiru ba mu nekkee ca loxoy noonam it taxut mu mu salit la mu waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati aduduhil ay man ne tubaab yi daf um sax mosuñu ko dégg ci man lu ne mu jàng mu jànkonte ko fa nattu yeneen ñu teg ko ko mu jaayanteeg boromam ne ko lu nattu diis diis ak lu mu tar tar dinaa ko dékku boo ma sàmmalee ruugi mu sax ca loola ba ab liggéey mat yàlla delloosi ko mu ñëw di xettali jaam yi di leen wan yoonu te tey ak ëllëg ijaal rujuu'i ilaa qawmi saadatana wal tak fi naa yow ma jamhil xalxi niirana ci noonu lanu xàllal yoonu mucc tey ak ëllëg kon moom li mu nu andil du ay théorie ak ci xalaati neen waaye dafa suubu ci yoon wa ñëw ànd ak ndaw solution ci sunuy jafe-jafe man shakka fi zalika fal yu jarri bi wa man yu jarib ba a bi taxaru bi aqbalati dunia ilaya qablu wa biyantuha fa sala anni l kablu nabbahtukum mahan ala kaddin bada lii qabla an ara ridan mu abada nee maa ngi leen maa ngi leen di yee di leen xamal ne toog naa lu ma ñeent fukk yoo xam ne maa ngi nekk ci diggante lu mel ne sukuraat ak najug bàmbeel lu ma génn rek dugg ci ba ca loolu lépp di wane fi mu jaar door am li moom sëriñ bi dafa fekk ñaar yoo xam ne falasifa ak xeltukat yi ak worom xam-xam yi mooy seen yitte yëpp te ñoom ñëpp a gàkk muy nu ñuy fexe ba defar nit ku baax ak nu ñuy fexe ba defar société bu baax te mucc ayib dale ko ci ñi fi jiitu woon ci ay civilisation ba ci tubaab yi fi tubaab yu fi mujj ñoom ñëpp loolu rek la ñuy jéem indi solution te mu tëleen tëj ndax lool yàlla mi ñu fi indi rek moo ñu mën a wan fi ñu jaar ba am ci solution wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan ulaayika allazina hadahumullah fa bi hudahum muqtadin moo tax Serigne Touba bu ñu nu bëggee wan nit ñuy defar nit ku baax danoo delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal ci noonu mu indi ñu modèle murid saadix mooy nit koo xam ne ay yëngoom akuk dalam ay waxam ak i jëfam ay defam ak i didem len len dong la cay xaar mooy am ci ngërëmu borom fu ma cay met ca la yem kon jëmu jume noonu nag lu nu soxla ngir mën a jagal adduna ak àllaaxira ak defar suñu àdduna ak suñu wéyee ba mu jag modèle bii Serigne Touba andi ci adduna mu modèle Modou Sadikh ëpp na li ñu naan citoyen modèle ndax citoyen moom weesuwul adduna ak lu ko jagal waaye Modou Sadikh nag li mu làmb mooy luy yéwénal sa diggante ak sa borom ak sa diggante ak sa morom ak sa diggante ak sa sëriñ ak sa digganteeg sa digganteek digganteeg adduna ak sa digganteeg alaaxira ba ci sa digganteeg la ngay fekk sa biir bàmbeel atastabdiluna lazi huwa adnaa billazi ci xayru kon nañu xam li ñu sëriñ bi indil ak fi mu jaarle bu baax ak leneen ak len ak ak ak ak ni mu gàggantee adduna ci yoon wi ñu jaar ba defar modèle nit ku baax sëriñ bi it dafa indi tontu ngag bu jaaxaloon waa àdduna sépp mooy ni ñu fexee ba tabax aw xeet wu mucc ayib lool it ni mu defoon ca ca bu njëkk bi rek la defaat mooy wala warudduhu ila rasul wa ila ulul amri minkum la alimahu lasina yastanbituuna minhum moo tax mu wax ne ila llahi bil qurani wa sunnati allati hadadni saraftul kulla wal xalbu xaasio alquran nag li muy ci tontu mooy inna allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum xusnu maab loolu nag day laaj dégginu xóot ci alquran di laaj it mafhumul muxaalafa te mooy la nekk ci suratul asri wal asri inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr loolu la ñu sëriñ bi dëxeñal ci dëkkam bi ak philosophie philosophie bi ko laytaay te mooy taxawal société ci baasu imaan ak al amalu saalih ci maanaam mi gën a yaatu nga xam ne laa moo ne lépp lu baax lu yàlla gërëm te mooy jëme nit ki kanam te de te lépp luy jëme nit ki kanam da cee duggaale loolu lanu lanu sëriñ bi daxañal ci mashruuxu Matlabul Fawzayni mu mu moo dajale fi mboolem principe yi jegal dundu doomu aadama ci àdduna ak alaxira bayu ci dara kon sëriñ bi li mu ñu raw na ñu xalaatkat yi di tërale ci àdduna dañoo xàllal yoonu mucc yoonu defaru yoonu suqali ko tey ëggalëg ki ki fi def jalooru jëre ji nag mooy sëriñ Tuubaa haasa xalqullaahi fa arooni maa saa xalqal lasiina min doot yi ku mel ni ku ko yàlla baaxe danga war xam li nga am te bañ koo foowe fal mu'tafa fal mu'ta kafaafan kafaafan sëriñ bi daa wax ne misaalu murid saadix fi ibtidaa islaamihi ka sabi yëli si yaxruj min badni ummihi mu ne murid bu door soobu sóobu moo ko xale buy door a génn ci biiru ndeyam ñooyam mu ne xale buy door dox am na amul am na lenn lu ko mën a may kattan lu namp soowum ndeyam bu ko bu bu nanguwul a namp na muy def xanaa wuy ji boroom rek mu ne nan lay nan la ndey di nàmpale doom ju mu tëg doom ju mu tëg doom ju bët mu teg ci ne ku ne mu ne ndey ju ne bu mu teg ci ne gone bu ndeyam bare soow kooku xool xam ko daa bëgg nag ngeen xam ne seen ndey jii am na soow mu doy mu doy sëkk tëru ko tëru ko jeexle ku nàmp ci moom danga am kattan da nga am xel kon toog leen ci seen ndey ba mat a fer waaye bu leen ferale leen dem di lekk suuf ndax kuy lekk suuf te bëwoo ko faw nga tawat te tawat mooy waral faatu suuf si ma leen di tere nag mooy àdduna ak xoyom xoyom ak jëngi jëm ci ni ko du Mouhamadou taxa li ñuy fàttalee waxtu ne wax na ko ci màggal gi rek ci woote màggal gi ne ne ñëpp gën a dëgmal gën dëddu adduna gën dëgmal sëriñ bi sëriñ bi wax na kon ñam yu ma leen di digal ngeen koy lekk mooy bàyyi àdduna ak la ci aju xam leen yaay joo gis ba soñoon doomam mooy kawe doom yëpp looloo taxit seen day ji di leen digal li mu leen di digal ndax àdduna bu xasee ba dugg ci xol bala caa génn danga sonn lool kon nag yam leen ci seen ndey te bañ a te bañ geesu di xool fen feneen na ngeen na ngeen def ni doom na ngeen def ni ni doom di def ak ndeyam bu ko gisee du amati soxla ci keneen bu ko gisut amatul yitte jurul wër ko ba gis ko doom daa war di nekk ci pekk ndeyam bu ko defee de du ko lor bu ko deful nag lu mu gis wër sa yedd ku dul boppam maa ngi ñaan yàlla mu boole leen ci doom yu dul gis ku dul seen ndey kon sëriñ bi wàccoon nag noonu ñoo ci des képp ku sukk ne aslamtu nafsi ba jaayante war ngaa xam ne moomatoo sa bopp al xurru xurru maa lam yatakalam baat de baat la daan laaj ca caddu ga te booba lislaam duggagu fi kon nag nañu bàyyi xel la yàlla waxoon saxaaba yi ne istara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna sëriñ bi dañu war a gënal suñuy bakkan gënal nu suñuy alal gënal nu suñ lépp ndax ñoo ko jaayante ca ësal waaw awfoo bi ahdillahi izaa ahadtum wa laa tanqudul aymaana ba'da tawkiid ba'da tawkiidihaa wa man awfaa bi ahdihi minallaahi fastafsiruu bi bay'ikum allazii baaya'tum bihi wa zaalika huwa al-fawzul aziim kon dañoo war a xam ne jaayante du baat yu ñuy wax di sànne ku ko def da war a xam li mu laaj ak li mu nangu ak li mu nanguwul jël sifaatu saadixi muridi teg ci sa kanam boo ca xotti rek xam ne tegootoo ci yoon wa daana wax ne bët bëtoor ba dañ koo jaawale ak unku ba ba far ko rey ngir nuroo ko kon nag ab murit day nuru nuru gaa yi yàlla yi sóobu ne ko sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mii di misaal di wax ne yaakaar naa ne bu ñu xooloon ci moom suñu dox dana gën a gaaw mag ñi àndoon ak sëriñ bi nekk moom xumaag lu ne daj na ko lu daj nañu ko jafe-jafe bu ne daj nañu ko wa ma da'ufu wa ma stakaanu waaye yàlla jaral leen ko sëriñ bi jaral leen ko ba tax ñu raw seen moroom yëpp ba am lu kenn amul li ko waral mooy fa ñu tegoon sëriñ bi ak li mu leen jaral li koy firndeel mooy ba ñuy liggéey jumaay Tuubaa ji lu ne dañ nañ fi dañ nañ ko fi lu ne jànkonte ne moom waaye seen pëstef jaral leen ko ngir xam ne li sëriñ bi bëgg dara mënu ko te am ay xeer lanu daa yeno ndokk ba Tuubaa lu jege fukki kilomètre di doxe seeni tànk ak di toj carrière ba te boobu machine yi amagul kon waruñoo dem ba jamono neex tax ñuy fooy suñuy pas-pas suñuy pas-pas ak suñu jaayante araditum bil xayaatu dunya min al axirati fa ma mataahu kon bu demee ba Cheikh Mahmoud Muntaxa di ñu fàttali ñu nafaraat Matlabul Fawzayni te mooy làkku Tuubaa ba tax mu digal njabootu Cheikh Ibra ñu taxaw balifi fi sëriñ bi bëggul bañ fi am kon day wa wane na ne war nañoo gën a jaajuwaat bu baax te xoolaat sunu bopp te takkaat sunu laxasaay te ku ne sàmm këram ak njabootam bu ñu ko defee lépp jag te xam ne sëriñ bi naxunu kon boog bu nax sunu bopp isil muridu laa yuridu fil murid ilal wusula naajia min al marid fa man ala xayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka kon nag fi may jeexal mooy jottali yónnenteb sëriñ bi mu jëm ci mboolem kilifa yoon wi ak mboolem taalibe yi ci sant leen ci li weesu lépp ndax mboolem somb yi yaatu na lool waaye yéen a ko ànd moom ba lépp da ko tim na ko sëriñ Saliou Mbacke daa wax rek joxe bi dafay jiitu laaj bi waaye daa wax ne waaye daa wax ne am murid moom du wàcc mukk ndax loolu da sëriñ Touba àndi woon taalibe yi kon ñu gën a góorgóorlu ci ñaari yitte yii ci sunu kanam bu jëkk bi mooy daari Seexul Xadim ji nga xam ne def ngeen ci li ngeen man ak li ngeen mënul ba liggéey bi sori na lool waaye àggagul te Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal loolu la jomb te loolu ñëpp ci ñëpp ci teg seen bët kon mi ngi koy fàttali ñëpp jeexale ko rek ci ñaaree ndigal li te mooy lu mu bëgg yaatal ci jumaa yu Tuubaa ji nga xam ne sëriñ bi ko santaane woon nekk ku ci feeñ feeñ ba faw taalibe bu ko man wax ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett mu nekk sa njotug sawara waxoon digle woon ci lam ci déglu lam ci daylu woon Cheikh Mouhamadou mu nag wax na ne bëgg na incha allah ba nawet bu wàccee jàmm am na aw somb mu fi bëgg a def mooy ay parisol yoo xam ne defar nañ plan yëpp ba noppi bu nawet bi jàllee jàmm dana ko yëgal taalibe bi yëpp leeral leen lépp dana ànd ak ay climatiseur bu noppee lu mat xam wéer junni nit danañ mën a julliwaat jumaa dolli ko ca la fi nekkoon ndax ñëpp xam nañ ne dëkk yi bari na jumaa ndax fii may wax ak yéen junni jàkkaa ngi fi ñetti téeméer jumaa ngi fi ci diggante 91 ak léegi waaye jumaa ji nag day ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba bàyyi woon moo tax moom bëgg ci fa si fa si yéene feeñal liggéey boppam bu ca tollee rek dana ko yégal ñëpp kon ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di ñaan na nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla suñu borom def ñu faatu ci accident yi ndax loolu niñ ko waxoon ci tàmbali màggal ga rek waaye nit ñi gën a góor te daw ndànk te xam ne nit du lekk lu du wërsëgam kon ñi ci faatu suñ suñ beeg leen ñaar yàlla jéggal leen te tabbal leen àjjana ndax Sëriñ Tuubaa na ne képp koo xam ne ñëwoo ci wàllu siyaare sama rek na ko jéggal te defal ko teex àdduna ak alaaxira kon ku ci doon ñëw rek ba ba sa ba ca sa bakkan desee na la wóor ne sa teex ak àdduna sa sa def ak ëllëg taxaw na ba ca desit mi nga masaw nit ñi ci ndox mi ndax xam na ne ndox mi metti na waaye nag nañ xam ne daa waxoon ne bu université bi àggee at nii la bëggoon woo taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu jaayante ko nañ defoon raay bi ak nañ def Masaalikul Jinaan waaye yàlla def nag bi nguur gi ñëwee jël seen yitte jëme ko ci moo tax mu jël lépp lépp jébbalaat leen ko te leen ci diglu ngeen xam ne ña nga ca te nañ ko ko ma ngi leen ci diglu moo tax soñju leen ci waaye añ ren jële ko bëggoon a tàmbale liggéey Sëriñ Tuubaa kon mi ngi sant taalibe bi yëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu